إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ألا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy bakkaar di ko ñaan mu teg ñu ci siraatal mustaqim moom boroom bi subhanahu wa taala képp ku mu teg ci yoon woowu texe nga waaye képp ku mu seetaan ci maanu téem ba nga wàcc boobu yoon réer amul kenn ku la mën a jubalaat yàlla nañu yàlla jubal ñuy seede ne amul kenn kun war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànneefam la xaritam la soppeem la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njuubam ji rafetal ba bañu wuyu suñu borom subhanahu wa taala ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla muy dénkaane bi gën a rëy bu ñu war a dénk ab jullit yàlla suñu borom duñu wax ci alxaan ni yaa ayyuha alladina amanu taqullah ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal te ngeen di wax wax ju rafet wax juy defar wax ju jub wax ju yiw ndax loolu mooy li jëmba ci seen biir al islaax mooy ak yëwénal ci seen nekkin ak dal sécurité te leneen li muy juraat ci yéen mooy yàlla dina leen jéggal seeni bàkkaar ngir ni ngeen dëppoo doon benn ci seen biir yàlla duñu digal ni képp ku topp ay waxam muy alquran gii ak sunnay muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy ki texe texe gu màgg ëllëg mooy yàlla dugal ñu ci kërug xéewal ga yàlla ñu ci yàlla defal mbokk yi suñu xutba yi weesu ñu ngi doon wax ci mafatixu rizq muy bunt yi nga xamante ni ñooy tijji wërsëg ñu waxoon ci xutba yu njëkk ya ci ni miftaax bi njëkk mooy taqwallah mooy ragal yàlla di def li yàlla digale di bàyyi la mu tere ñu waxaatoon ci miftaax yi ni at tawbatu wal istigfaar mooy ginnaaw bi jaam bi juumee te njuumte yooyu noonu bokk na ci liy tëj wërsëgam mooy bàkkaar yu bari yàlla mu ni ngir ma tijjiwaat sa wërsëg nag dellu soowatal ci man de jéggalu ma di ma sàbbaal di ma jéggalu ci baatu astaghfirullah bu ko defee man dinaa la jéggal ñu ñëwaatoon ci beneen miftaax muy atawakkul ala allah muy wàkkirlu ci yàlla te wàkkirlu ci yàlla neewul ne rek yàlla la bàyyi sama boroom sama bopp dal di nekk ku yaasu yaafuus waaye dafay ànd ak ay asbaab mooy di sabablu loo xamante ni ci nga yëngatu mu bokkoon ba tey ci miftaax yi atafarru mooy nga occupé wu ci jaamu yàlla ci tudd yàlla ginnaaw bi nga xamante ni liggéey nga te liggéey bokk ci xeetu jaamu yàlla yi soo ca noppee sa temps libre bi nga am nga ciy tudd yàlla di ko ci sàbbal di ko ci bàkk yooyu bokkoon na ci li nga xamante ni moom lañ limoon ci liy tijji wërsëg tey bismillahi taala beneen bunt la ñuy tijjiwaat mooy silatu rahim mooy jokk mbokk wa qaala alayhi salatu wasalaam man ahaba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsau lahu fi athari falyattaqi llah wal yasil zaarihami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni képp koo xamante ne bëgg na yàlla wàccee ci moom wërsëg gu yaatu ba pare yokk ay fanam xëcci fanam nee na falyattaqillah na ragal yàlla ragal yàlla bokk na ci lii ubbi sa wërsër wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib képp ku ragal yàlla yàlla nee na may becc ci kaw sa kaw bépp wërsëg soxla soo am mu faju te saay boo jaaxlee fa nga gën a jaaxlee foofu laa lay fekk man rek maa lef ko la fi mën a génne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ñaari charte yi mooy charte yi tax yàlla yaatal sa wërsëg ci xadis bi mooy at taqwallah ak xëcc tak say fan say fan ci jokk bi ngay jokk say mbokk xëcc say fan boo ko delloo ci alquranul karim yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ni fa ida jaa ajaluhum képp koo xamante ni fa yàlla nattoon ni fii la sa dund di yam nee na fa laa yastaxiru saatan wala yastaxdim malaaka bi du yàkkamti ba mu des benn cerse mu faat la waaye du la yëram ba bàyyi la benn cerse nga koy dundaat kon lan mooy maanaawu xëcc say fan ñu delluwaat ci alquranul karim yàlla mu ni fi nga xamante ne foofu lay bind dogal yi muy lawxul mahfuz foofu kenn eggu fa ku dul moom subhanahu wa taala te yàlla mu ni yamxu llahu ma yashaau wa yasbut wa indahu ummul kitab nee na foofu may bind dogal yi ma bindoon ni say fan wala say wërsëg lépp mi ngi yem ci nangam nee na boo ma ñaanee ñaan ma ma nangul la wala ngay tuub di dellu ci man nee na la ma bindoon mën naa la kaa faral ndax maa ko fa bindoon te man maa am kàttanu di bind ak di far defal li nga xamante ni mooy li li ma ñaan mooy bu dee yokku sag fan ma yokku sag fan bu dee yokku sag wërsëg ma yokku sag wërsëg kon xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci jàngale ci jokk mbokk la mu mën a jural jaam bi mbokk nag boroom xam-xam yi dañ koo tënk ci ñaar ci ñaari anam maanaa bu njëkk bi ñu ni wa qiila humul aqaaribu alladina yarisuuna minka mbokk nee nañ mooy ñi nga xamante ni ñooy ñi la mën a doon rek soo faatoo ñooñ foofu lañ tënk jegeñaale wante al umum ñi nga xamante ni ñooy ñi ëpp ci li ñu wax mooy ni mbokk gi mooy sa mbokk pas-pas googu ak sa mbokk deret googu ak say dëkkandoo képp ku yàlla def ab xame am seen diggante nee na jokk ngay jokk di rafetal seen diggante loolu bokk na ci li yàlla di yokkee sa wërsëg te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàngale ni lii tax mbokkoo googu dëgër di rafet mu ni mooy ngeen di tasaare rek jàmm kenn ku nekk yéene sa bopp jàmm wante li leen di tas nag di di di féewale mbokk googu noonu nee na mooy bu fekkente ni judd na ci seen biir atanazoon mooy werante werante wolof moo koy tuddee weerante mooy nga xam ci man safaan weer ma keex it xam ci man safaan weer ma bu ko defee ñu ni yéen a ngi weerante lu leen yàlla suturaaloon bu ko defee weerante googu mooy jur taxaasut ci seen biir mooy di bañante ndax koo waxal safaan laal nga orgueilam kooku dootu la ëmbal moom it sutura bu ko defee mu jur bañante seen biir bañante googu mooy dem ba juraat te daabur maanaam ku ne wanante sa mo sa morom ginnaaw wanante ginnaaw mu buñ ko waxee rek mbooloo tas na te bu tasee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa tazhaba rihakum li leen yàlla doon wërsëgalee ba di leen di dimbali di leen di sax jéggal loolu yàlla da koy téye kon nga gis ni jokk mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci waaye borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci ci alquranul karim yonent bi waxaat ci beneen xadis mu ni taallamu min ansaabikum ma tasiluuna bihi arxamakum fa inna silata rahim mahabbatun fi l ahli masratun fi l maali manshaatun fi l athar mu ni jànge leen ci seeni mbokk ni ngeen di jokkee seeni mbokk kenn ku ci nekk am nga way jur bu góor ak bu jigéen am nga ay nijaay ami bàjjen mbokk googu noonu yàlla def ci yow ci ñi la gën a jege yonente bi sallallahu alayhi wasallam na nga ci jàngee ni ngay jox ko yeneen i mbokk ndax cër bi nga jox say wayjur boo ko joxee keneen ku maaseeg sa wayjur ci ay at nee na yaa ngi jox ko ay mbokk ki maaseeg sa wayjur bu jigéen it cër bi nga ko jox boo koy natt ci keneen koo taseel nga jox ko boobu cër mooy ci war ma ak ci cër nee na boobaa tamit yaa ngi def li nga xamante ne mooy jokk mbokk yaa ngi suuxat ak mbokk li muy jur nag mu ni dafay jur masaratun filmaay dafay jur ak yokkute ndax képp koo gis boole ko sa bopp bëgg ko ëmbal ko cofeel gi nga gi nga yéene sa bopp ci lu baax nee na kooku it lépp lu mu am ci ay ngëneel dala ko yéene kooku la bu ko defee loolu day nekk ziyaada ci sa ci sa am am wa manshaatul fil asar yokku sag fan nag wax nañ ko léegi nekkul ni sax say fan mën na yokk comme ni ñu ko joxee léegi misaal waaye fan wu gudd borom xam-xam dañ koy natt ci barke mën ngaa dund at yu néew waaye yàlla barkeel ko ba daanaka mën ngay dund ay at ci ci biir suuf waaye mu doon ay njariñ yu lay fekk ca fa nga tëdd ci biir suuf ngir barkeel bi nga sa dund barkeel أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaatee borom bi subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëwaat suñu taxawaayu ñaareel di wax ba tey ci miftaaxu rizq mooy caabi yi tijji wërsëg ñu ciy limaat beneen miftaax muy as sadaqa muy saraxe yàlla suñu borom subhanahu wa taala di ci joxe misaal ci alquranul karim ci saraxe mu ne benn waay moo nekkoon nii muy histoire waa tool ba waa ju yàlla defoon ci moom wërsëg bu yaatu mu am tool bu naat lool bu yàlla barkeel li juloon barke bi nag mooy ni saay bu mësaana bay ba witt tool bi yépp lam cay am ca alal day delloo benn xaaj bi ci suuf si maanaam ci tool bi ngir mu mën a meññaat beneen xaaj wi mu def ko ci biir njabootam beneen xaaj wi nag moom lay séddale al fuqaraau wal masakin mooy way ñàkk yi al muxtaajin ñi ko aajowoo góor gi bi mu faatoo njabootam gi donn la góor ga bàyyi ndax wërsëg moom wërsëg rek la tudd boo faatoo day wër sa sëg waaye du ànd ak yow mukk ci biir sëg bi ci biir bàmmeel góor gi bàyyi nag wërsëgam njaboot gi njaboot gi donn ko yàlla tijj ci nag barke bi gën a yokk ñoom seen xalaat biñ ci njëkk am mooy nan la ñuy def ba alal bi gën a yokk nag te lañ ca am comme solution mooy buñ ci sédd kenn nañu nañu góob lépp def ko seen bopp lu ko may rek seen seen am am day wàññee ba ñu fasee seen yéene ñu ne dañuy bàyyi kon ba fajar ñu dem bu ñu demee ci fajar gi balaa benn laajkat yi dañu sonal ci ak laaj fekk ñu witti tool bi yëpp am génne nañ seen xel sax ci ni yàlla moo leen wërsëgalee lool génne nañ cëru yàlla ci mbir moom laata fajar di jot la yàlla wàccee ci ñoom ca tool ba ab musiba tool ba yépp raaf ba dara dara dara desatu fa mu mel ni dañoo witt lépp ba pare taal tool bi ba dara nekkatu fa ñu ñëw kenn ci ñoom ba mu leen déggee ku nekk nan lii lan la ñun alku nañ ñun ñàkk nañ ñun yàqu nañ moo ñu leen yéen dafa mel da ngeen a fàtte woon benn aspect mooy ni lii yàlla boo ñu ko joxoon ñu war cee sëdd ñañ ca war a sëdd ñu mujj dellu ci waat ci kàddu googu leen kenn ko kese wax ngir ni kon nañu delluwaat suñu bopp ci yàlla xal seet na xëy na yàlla jox ñu lam ñu joxoon rëcc moo ci mujj moom la alxuraan wax ni inna balawnahum kama balawna ashaabal jannati id aqsamu la yusrimunnaha musbihin wala yastatnuun fa taafa alayha taifum min rabbika wa hum naimun ba xisaab bay ñëw ñoom ña ngay nelaw fa asbaxat kassarin fatanaadaw musbihin an igdu ala xasikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yataxaafatuuna an laa yadxulannaha almiskin an daw gaaw balaa miskin yi li ñu fa jiitu bañ ñëwee fekk ñu fa dara fa asbaxtu kassarin fatanaadaw musbihin an igdu ala xasikum in kuntum sarimin فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها المسكين وغدوا على حظ قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون يعني سين اللخو yàlla di joxe misaal ni leen lii ma leen defal nag comme mbugal xam leen ne bu doon yowmal qiyaam mbugal moom mooy gën a tar kon yàlla ab jàngat lay joxe foofu ne ci képp ko am alal na nga koy sédd ñii nga xamante ñooy alfuqara wal masakin mooy liy jul barke ci sag alal ak yokkute ci sag alal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni saay bu doomu aadama yi xëyee am na ñaari malaayka yoo xamante ni ñu ngi xëy di ñaan ñaar malaayka yi mooy yow yàlla kii xëy di joxe yàlla na nga ko jox wuutal ci alalam waaye ki nga xamante ni moom day xëy di konte lam am di yóotuwal lam ca dolli xalaatul benn yoon pour dimbali kenn ku mën a doon kooku yàlla na nga ko xañ te ñaanu malaaka yi mbokk yi yàlla du ko du ko delloo te yàlla mu ne wa maa anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayru raziqin lépp lu ngeen génnee rek moom wutaleen leen leneen lu ko gën ndax maay borom wërsëgu yaatu bi fi ñuy tëjee ci miftaaxu rizq suñu xutbay tey mooy azdiwaaj mooy jël soxna jël soxna it bokk na ci li nga xamante ni dafay tijj nit ki ci wërsëg bu dee nit jël bi ngay jël soxna da nga ko jël ngir feg fegu ngir fegu soxna moom su la ci période dugalee wala puukarewu di nga ci génnaat mooy li ngeen di gis léegi ci jamono daanaka li ñuy fas ci ay sëy ñu koy siiwal buñ ko doon siiwalee noonu sëy yi yàqu nga xam ni mbir mi daam am na am na lu ci nekk la ca nekk nag mooy ñaari way dencante yi dañu bàyyiwul xel ni la leen boole jaamu yàlla la ñu jël leneen daal di koy remplacer loolu moo jur li mu jur waaye jël soxna dafa bokk ci liy yokk sa wërsëg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ni ci xadis abi hurayra mu ne thalathatun xaqun ala allahi awnahum ñett a ngi ñoo xamante ni yàlla da leen di fegal da leen di protéger da leen di yokk ki ci njëkk mooy al mujahidu fi sabilillah kii jihaat ci yoonu yàlla wal mukatabu yuridul ada ki nga xamante ni moom dafa nekk ci buumu jaam ñu ne ko boo joxee nangam ñu goreel la kër kër gi muy def ngir ñu goreel ko kooku tamit dafa nekk ci awnullah keneen ki mooy wan naaxibu yuridul ifaaf ki nga xamante ni dafay jël soxna te bi nga koy jël dafa bëgg a fegu fegu mooy yow say machair mënatoo ko téye say yëg-yëg te ñàkk yi nga koy ñàkk mën a téye mën na laa jural ci ay bàkkaar muy yàlla nga ne dama fas yéene denc soxna ngir fegu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku am boobu yéene nga du jël ci soxna nee na yàlla moo lay wërsëgal min xaytu la yaxtasib ndax lay dundal soxna si yàlla dala koo gàll mais nekkul yow la koy jox da koy jaarale ci yow ak yeneen ni xéwal yoo xamante ni mën na la fa fekk ñu ñëwaat ci xadisu abbas ibnu abbas radiallahu anhu muy abdullah ibnu abbas mu ni arbaun man utiyahunna utiya xayra dunia wal axira ñeent ngi ni yoo xamante ni ku ko yàlla defal defal na la xéewalu àdduna ak alaxira mu ne qalban shakiran xol boo xamante ni dafay sant yàlla wa lisaanan zakira ak lamiñ boo xamante ni du fer ci tudd yàlla wa badanan alal balaa'i sabira ak koo xamante ni yàlla daf koo def ci moom ak wéradi yaramam am lu ci nekk ci tawat wante saalitu ci benn yoon mi ngi jël lépp jàpp ni yàlla moo ko teg natt wi muy feebar bi te su ko soobee dina ko teggi muñ googu mu koy muñ nee na kooku bokk na ci wa zawjatan la tabrihi xawfan fi nafsiha wala maali mu ni soxna soo xamee nit soo ko bàyyee ginnaaw sa xel dina dal ci moom ci ne du la utal keneen ku muy dem ngir sàkku ji bànneex ci moom maanaam njaaloo te it sa alal boo ko bàyyee ak ginnaaw ci moom dina la ko sàmmal mu ne ñii de yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñu jël ci ay matuwaay atte woo li nga xamante ni nag foofu la yàlla wax ñu atte ko ku rey nit ñu rey la an nafsu bin nafs yàlla moo ñu ëpp yërmande fuuf waaye moom moo joxe boobu atte man de tànn naa ngir loolu ak yeneeni xeetu tànneef yu ñu la tànn kon man dama laa sas yow nag boo demee ba foofu nga def leneen lu loolu war nga ma kon muy bis boo xamante ni kenn ku ci nekk am nga ci part de responsabilité waaye bis la boo xamee nit amul lenn fitna lu ci war a jug kenn ku ci nekk war ngaa jug def la nga war a def comme sa devoir en tant que citoyen nga def ko delluwaat sa kër lu am nag nga xam ni lii moom moo jiitu woon sax sa dem bi ngay dem di ko defi ji ndax yàlla dogal na ko pare ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله Muy bien, muy bien.